président la république ma ni ko nanu soppi doxin ma ni ko gis nga tubaab lii nu bàyyeel dara baaxu ci ma ni ko anglais yi sax ci tane français yi ma ni ko dem naa réewu anglais yi ba gis yëpp dem réewu français yi ba gis yëpp ma ni ko administration bu français baax la bu anglais sax ko wax ko yëpp mu ne man de dama jàpp ma ni ko lu tax mu ni ma lii nga ma wax bërki démb sama rakki bopp wax ndax ma nga doon defee formation ca Canada ñëw rekk dal ci sama kaw wax ma ko piir ñetteelu fan bi ñëw wax ma ko piir danaa ko wax mu seet si la ngeen waxtaan wallaay ndeysaan eh, léeg waxtaan waxtaanu daara piir di di waxante yu méttee métti waaye rek dafay baax ba parce que kum ca xamati keneen ku nu bokkal xalaat rek mu yónnee si ma ko nu waxtaan rek ndax nit it dana donn lenn te xam ni baaxul baaxul li nu donn ci tubaab yi baaxul baaxul mukk waaw li nu donn ci tubaab yi administration boo xam ni problème bu ne daf koy bloqué boobu baaxul baaxul waaw dafa falu rek nekk président xaritam laa nag fi nga may gis lu ne la ñuy waxante lu nekk bu nu gisee yàlla fii yonent fii bu nu ca jógee wàcc ci iblis waaw iblis fii nanga yenn yi dafay rey ba tëdd ci suuf ni ma wala yaa wax dëkk ma ni ko ci sàkk pexe boobu ah, ma ni ko mu fallu rek ni ma waaw lu may jëkk a def ma ni ko yi may liggéeyee yépp jële ko ci sama loxo mu amul njëriñ ma ni ko amul benn njëriñ ma ni ko liggéeyal tubaab ba ba ngay dee nag baaxul ma ni ko te tubaab booy liggéey ak moom dangay liggéey ak moom ba ba ngay dee ndax bu la joxee la mu la jox dana ca dugal yoo xam ne dootu rëcc mukk moom nga fay nekkal ba bu ngay wuy ji sa borom ma ni ko boobu nag man mënu ma ko mukk jëlee yëpp sànni ci àll mënuma ko de seen secret yëpp xam naa ko maa leen topp ba ca cugal bureau par bureau liggéeyukaay par liggéeyukaay ba xam li muy dem ma ne ko demul ma ne ko demul mukk mukk liggéey loo nit bu mu xëy dee te du ca am dara dara dara dara ma ne ko moom la boobu nag nun kenn yarunu ci mukk ma ne ko sëriñ Babacar a ko bàyyeeg nun muy principe bu wóor mu ni mag du fecc yàlla naa dee mag du fecc yàlla naa de kaay ma jox la boutique bi nga liggéey baax na de ceeb a ngi fi suukar a ngi fi kaani a ngi fi nangam a ngi fi te seeru boo amee ñeen ñeenti million rek baax na ñeenti million nga ne ay ci dugg ca ba ca biir doo ca génn mukk loo liggéey rek ñu lekk waaw te nag mag du fecc yàlla naa de baaxul de di ci waxtaan di ci waxtaan di ci waxtaan ndeysaan lu ne lu ne lu ne da koy xam boo ko xamul boo ca duggee du baax moo tax lii Serigne Abdou wax ndeysaan maa ngi koy waxtaan ak Hadj si Cissé bërki dem benn ambassadeur boo xam ni def nu woowoon ca këram këram sorewul ak fi ma dëkk mat na léegi fukki at ak mu ne man de yow rek laa bëgg waxtaan ma ne ko lu tax mu ne dama gis foo jëm ci mbooloo nga koy wax te ku muus du def loolu foo jëm rek ci mbooloo nga koy wax ma ne ko ci lañ ma yàgg ma ne ko mënuma ca dara bu ma doon reyi nit yi tàggoo wax ko ñëpp ma ne ko waaye rekk te di fexe mënuma ko tëju ci néeg rek di fexe ba mu sotti mënuma ko lu may def ci mbooloo laa koy wax tàyyi mu jeex waaw waaye kaay nu gise kaay nu fexe kaay nu def lii dugg fii génn lii bi mukk su ma ko def mukk su ma ko def mukk li ma xam fii bu ma ko waxoon balaa tàkku sax àdduna tukki waaye duma ko wax mukk man nga may bal di ma bal ba lor ma duma ko wax waaw naa la bàyyi nga di ma bal di ma bal di ma bal di ma bal ba gaañ ma duma ko wax mukk waaw uh-huh. boo ko wax ndax loo xam ni boo ko waxee àdduna tas doo ko wax waaw doo ko wax ndax nag ndax nag góor gu baax gii rek wax dëgg yàlla wallaay moo tax français yi anglais yi ñoo leen gën takk ñoo leen gën takk Cheikh El Hadj Malick wax na wax na ko góor gi Abdou Karim li kenn xamul kenn xamul Cheikh El Hadj lu mu doon ci nit kenn xamul waaw yi mu xam dafa bare euh, Abdou Karim lii dafa dem ci colonie anglaise yi war ko ba ñibbisi dem fekk ko ca Tiwaawan mu ni ko góor gi man de léegi maa ngay toxo dem ci anglais mu ni ko lu tax mu ni ko dañu jàmbure mu ni ko seen jàmbur gi dey kufur gu tar kufur gu tar kufur gu wax ko ñetti yoon fekk na seen férocité lay wax seen férocité ci ci bu ñuy coloniser du ñu caaxaane seen mission ñoom mu ne ko français yi nag mu ko jikko xaleel la ñu lu ñu gis rek defe ni ñoo ci gën a waaye boo tëyewul seen loxo nag yàq mu ne ko jikko xaleel la ñu amee lu ñu gis rek defe ni ñoo ci gën a jekk yóbbu ko rek la seen xel bi nekk waaye boo tëyewul seen loxo nag ak lu waaw yooyu boo ko xamal mu àdduna tukki yow da jàng rek ñu sëf la diplôme bu dul jeex dama dem ci benn réewu arab fekk fa benn waay ma ni ko kañ nga fi ñëw mu ni ma am naa fi ñaar fukki at ak lëf ma ni ko jàng nga bu baax ma jàng naa bu baax bu baax ma ni ko jàng nga bu baax jàng naa bu baax am naa sax diplôme ma ne ko ñaata diplôme la mu ko ko te jàng fi di woon ci réew mi ma ne ko loo xalaat léegi nag mu ne ma jéem a dem ca réew ma rek seet fu ma leen di jaarale ma ne ko ah. mu ne waaw jéem a wut rek fu ma leen jaarale ma ne ko kon naa daana fa dégg ndeysaan may dox ba gis ko nag ma nga sëriñ ni ma ne ko naka la affaire ba def mu ne ma ah waaye man dëkk dañ ma doon nax rek nekk sama diplôme yi du woon dara dara dara dara ndeysaan nu ànd doon rek ko daanu ci suuf walaay ndeysaan lu mu ci xam dem na ci ñu ko nax rek ni ko rek jeex na kaala ko jox ko juróom-ñaari diplôme génn ca walaay ndeysaan mu ni nag mi ngi ñëw fii pour rek orienté nit ñi ndeysaan te bu ñëwee kat xale bu jigéen bu tuutee ko téye orienté ko moom ba dootul xam fu mu jëm tax administration lu am solo la boo ko donnee te baaxul nag pour nga defaraat ko dafa jafe te tubaab yi seen administration ba ñu ngi ko xul ñoom fu ñu toll fu ñu toll na nga ko déglu ñu ngi ko tawat ñu ngi ko tawat fu ñu toll boo demee tugal dañu ko tawat fu ñu toll xam ne baaxul te amuñu njàmbaaru soppi ko xam nañ ni baaxul mais amuñu njàmbaaru soppi ko mais li ci gën a metti mooy ñoom am nañu waaye ñi ñu ko donnale amuñu wallaay ndeysaan ñi ñu ko donnale amuñu waaye ñoom am nañu boo amee te la nga amee baaxul sax dinga mën muñ mi ki nga ko donnale te amul fu mu jëm dafa sonn ndeysaan sama mbokku séeréer ma euh, dafa dem rekk euh, euh, takki benn jigéen la mu dencoon yépp yëpp yëpp mu def ko ca ndax kayit yéeg dugg a génn noos beeg yu kenn xamul ba affaire ba ni papa bëgg ndeysaan euh, mënatu fa toog nag mu daw am ruq rek bu mu nekk waaye ma nga sonn amatul fenn fu mu jëm ba nag ku ko xamoon ca kër ndaw sa dajeeg moom ñu ko yow kii du diw mu ne ah kay mu ne ko ndeke yaa ngi dund ko dund gu ñàpp moo tax tubaab yi li noo ñaan mooy li ñu nu donnale bañ a yàq li nu yonent bi donnale loolu rek moo ci am solo ndi kenn du ni nasax nañu ndax dëkk ku fa ñëw def fa saxaar muy daw def fa oto muy daw def fa ay fajukaay indi fa garab nasaxuloo tabax fay école na sa xulub waaye am na jikko yu doxul mhm, am na jikko yu doxul am na jikko yu doxul yoo xam ne neexu leen sax ñoom dañu koy tawat man ku ci barewul la waaye dañu ma tawat yenn jikko yi ci seen réew ni mu leen def ak ni mu leen metti ak ni mu yàqe seen diine dañu koy tawat waaye nun bu nu ca jotee du ñu ko gëmee noo ci nekk waaw deme noo ci nekk seeni shaybatu ku neex la dafa am benn njabootam bu ñëw Dakar rek gisatu ko mu di ko jël si tàggu Serigne Babacar si ba mu demee mu ni ko gis nga ko mu ni ko am mu ni ko ànd ngeen ñëw mu nu ko déedéet ñemeetuma ko ndax ma nga sol yooyu ne tubaab yee sol ba takk morso ba ca baat waaw wallaay ndeysaan ndeke karawaat lay wax góor gi dafa ree ci suuf ni ko yaa yeey de mënu ko fa laa ko bàyyi ndax yooyu tubaab yee sol sol na ko ba ca morso ba ca baat ba ma ngi ko takk waaw waaye yooyu yëpp li la ciy dimbale mooy nga gëm li ni jonn te nekku fi maanaam gisuloo ko te mu ngi fi ni jom nga gëm ko dana la dëgëral ndax bu jiitoo lu dikkati rekk daa xam foo koy jaar bu jiitoo lu dikkati rek nga xam foo koy jaar waaye bu jiituwul musibaam dafa jur yàqu-yàqu yu bare te doom yépp war nañ ko xam xam ni li ñu fi bàyyi bi ñuy jàngi moo gën kon nag bu ñu jàngee ba ñëw mën nañ ko tabaxe ci kaw li ñu fi tegoon ëpp na ñàkk def waaye ki dem ba bañ yëfam boo naa ko donn yaa ngi yàq waaw ki dem ba bañ yëfam tàyyi ca tàyyi ca xam ni la mu ca defoon yëpp bari na ci lu jubul ah bu la taxee salit yëw jaru ko jaru ko mukk moo tax wa laqad alimtum an nachata al ula yàlla ne jël naa ndox jaarale ci way jur bu góor way jur bu jigéen jël ëmb juróom-ñeenti weer génne ma sàmm ñu nàmpal ba mu fer ne ma sàmm ba mu waaxu dem jàng ma sàmm ba mu tabax kër ne ma sàmm ba mu màggee ne ma sàmm ba mu jóge fi nee na dund bu jëkk baa ngoog boo ko xamul ne bu ñaareel baa ngi ci man boo ñëwee fekk ko fi waaw ah. dund bu njëkk baa nga mais bu ñaareel baa ngi ci wan boo ñëwee fekk bii nag ku ko gëmul doo gëm boobu waaw ah. bii nag ku ko gëmul doo gëm boobu moo tax yonent bi daan def bu ko waxambaane rombee waaxu mu nekk neexoon waaxu mi mu def ko ci liggéeyu yàlla waaw intit daan na def bu ko waxambaane rombe wàqu mu nekk neexoon wàqu bii mu def ko ci yoon yàlla wallaay ndax xam rek la ci yàlla def waaw bu dul yàlla rek wàqu bi doo mukk waaw euh, sëriñ Babacar si nee euh, mag ma dafa ànd ak sët ko mu ni ko maam jàngal ma àdduna mu ni ko ah, kaay ñu dem tey ñu dox tuuti benn waxambaane daagu waaxu romb leen xale ba ni ko maam kii mooy kan mu ni ko waxambaane mu ni ko xam naa waxambaane ëpp doole ci àdduna mu ni ko mukk mu ni ko ku ëpp doole mu ni ko xale bu jigéen mu ni ko bu ko jànq woo